ñemewu ma ko wax. gis nañu ñu lay naan tàllal sa loxo boobu lan la ñu ko doon lan la ñu doon liggéey si sa loxo. yoroo moon dara pourtant yoroo moon dara mais soloon naa ay gants. gants bi la ñu doon. yaa eh, solo mayo. waaw. ana mayo bi. Hmm. bii nga bii nga soloon ba ñu dugal la ci. waaw waaw. ban message ngay lancé Je lancé que bu kenn célébrer. les bras nous continuer que la lutte continue voilà tant qu'on est là tant qu'on est en vie on ne va jamais baisser les bras voilà la lutte continue et puis je me jàpp que que lutte bi commencer lay

ma gëm lu ma gëm rek après lañ ma yóbbu commissariat central de Rebus. ñu bàyyi ma fa ba lundi diggante vendredi ba lundi j'étais dans de mauvaises conditions j'avais la tête vraiment qui euh, qui faisait très mal j'avais des bleus partout sama bët bi gisatul benn bët bi gisatul dafa dafa muuru woon donc du coup j'ai demandé à ce que ñu yóbbu ma hôpital mais bon yóbbu nañ ma vite fait mais quand je suis revenu, ma jënd mes médicaments ñu nangu ko voilà donc j'ai pas pu continuer le traitement ma toog di voilà di muñ ba ñu indi ma fii le lundi euh, vers 18 euh, huit heures même médicament yu ma beneen médicament bu ma sax dañ ko mujjee nangu pour rek je savais pas pour que ma gën a dépérir voilà pour me faire mal faju ñuma ay comprimés une ma c'est c'est rien du tout parce que normalement j'avais besoin euh, que nous fassions un scanner parce que j'ai vraiment des problèmes dans la tête je leur ai expliqué plusieurs fois que je dois euh, voir un scanner faire un scanner nous sommes bañ bon mais santé à rek comme nous avons. ci dina faju mais terewul dina continuer tay la walu gëna ay voilà. est-ce que bu la arrêté voilà sa famille xamoon nañu fi nga nekk. hein héroïne nga. merci beaucoup eh, wallahi héroïne nga. merci merci. monde bi yëpp ñoo la sotal parce que les vidéos ont été virales. merci waay. jooy nañ te xamuñu la. parce que am nañu ñu bokk on lien fort bi nga xam ne mënuñu ko dindi. ñu c'est vrai loolu mo leen né métier duñ ko mësa am. merci abadan daay man. merci il faut pas avoir ce courage que nous avons nous avons. On femmes Et ça, ça leur fait mal. Mais Inch'Allah, le peuple gagnera, le peuple vaincra. On a gagné, on a déjà gagné. C'est le, maillot, le de, de la gloire. Ça, c'est le maillot de la gloire. C'est le maillot euh, qu'elle portait, hein. Elle frappe du Sénégal. Donc maintenant, euh, porter les couleurs de la nation,

Pirbi. O Pirbi é...